mais Mouhamed maa ngi lay ziar Mouhamed yaa ngi may bind naan ma bàyyil kaa non non non no lii du kaa dafa am lu ñuy leeral rek dañuy tuumaal ay gor ma leen di défendre maanaam yéen ñi ñëw fii sax di bindal naan ma Ahmed Cheikh bi du sa nangam du sa morom wala communication du ngeen ay nit yu baax. man jàpp naa ne fu nu jëlee dëru nit di ci teg lu ñaaw pour di ko yàq pare ngeen pour défendre ko parce que ki ñu tuumaal waxul du def lu bon man loolu leer na ma mais yéen ay doomu xaraam ngeen du ngeen ay nit ñu baax man bokkuma ak yéen man faalewu ma ndayu mindeef lu ma war a wax damay katt ndayam ci taabal ji mu leer man bokkuma ak yéen de man du ma yéen bokkuma ak yéen ñu topp écran bi mu yëg waaw gars yi bu nu yeggee cinq mille ñu commencé cinq mille laa waxoon de cinq mille laa waxoon waaw bu nu eggee cinq ñu commencé bu nu eggee cinq mille ñu commencé ñi gën a bëgg kaa laal di officiel na ñu ngi nii ñi ñi ñi gën a bëgg kaa ñëpp a ngi nii lii leen téye leen rek sama live dama koy yàkkamti téye leen rek duma ko yàkkamti ndànk rek day nooyi ànd leen ak dal rek ànd leen ak dal rek <laughs> merci beaucoup Samba Penda benn yoon la ma mos a woo téléphone te xam nga lu ma doon wax daf ne ma Pape Moussa mi nga tudd ci wax ji génnee ci Pape Moussa ndax doomu bari ñi la xaritu ma moo ñee la woon doomu bari ñi la bu ko dugal ci coow li génnee ko ci lee tax ma am numéro Penda ngay dul naan penda dala doon message danga doon wax ak penda yaa ngeeg ay vocalam moo ñëw doon yàq nanga kattal ndayu vocal yi lu tax te ko amoo sutura loo yar kat ndayam ci taabal ji penda jabaruma ngoone mu nekk peccet sax danga war a génnee fu mu lay message wuy ma teg ay vocalam lim lay wax yaa mën a xar sa job ndey amoo argument li nga waxoon a ngi nii déglul penda te penda dina dugg de ah ah penda dina ñëw man dama mën a topp kaa penda faaw mu dugg <laughs> Penda faaw mu dugg Cheikh Ahmed affaire bi du yombee noonu lii nga waxoon patriote yi anamu déglul gars yi. patriote li mu moo wax Ousmane Sonko bu samedi dina leer <laughs> faramare ni ni Wally bëggee moomoo ak li ko moomoo di wax dina leer samedi incha allah. pour wan leen ne wor gi jigéen. Ah, lii nga ne yaa ngi audio yi lii la gars yi di xaar xanaa audio yi dalaa leer sëñ bi sëñ bi xanaa audio moom moo yi muy yàqee Wally Ballago Seck di ko wax ci Ousmane Sonko partenaire xanaa ko wala audio yi da nga ko fabriqué woon noonu pour gars yi mën la seetaan si gars yi ñu ngi ko doon xaar gisuñu ko ak preuve yi nga xam ne yor nga ko ci moom moo ne dafa bëri yëpp génnewoo ci benn bàyyil duul ñi lay seetaan di la maral sa bun bokkuma ci loo wax dangay ubbi seen la fal ndey di duul. aadama amoonoo ci moom cottu ndeyam saa yoo génnee mu génn lekk sa data ndey bu baax dangay ngay dul loo wax ay fen la loo wax dangay ngay ubbi sa lëfal ndey fi may jële ay information mënoo ko xam ñaari vocal nga teg ci man ñu naan la sëñ bi yaa fi nekk yaa yor communication bi macha allah ah, ah. yoo xam ne Lamine ballaago moo ma woo gars yi kii mooy Lamine Ballago yéen ñi ko xamul kii mooy Lamine Ballago Lamine moo ma woo ne ma jay naa da koo woo téléphone mi ngi jooy. nee na naa bàyyi li ma koy waxal ndax dana dem ba mu jàgg mooy loolu mu vocal ma ne ma ma ne ko Momo Dieng dafa baax mu ne ma Momo nag Dieyna moo ko a baax ma ne ko man da xaw ma Dieyna xaw ma ci moom dara mais nanu bàyyi di yónnee ay nit pour mu yàq deru nit mii moo jël vocal yi nee na yërëm Dieyna ci jooy yi jot naa ko vocal maa ngi appel bi duma ko teg Lamine Balla ko mii ma maa jël vocal yi yónnee ko Dieyna ndax da doon jooy ma bëgg a dalal xelam nee na Cheikh Ahmed si sax woo na ko naan ko jox ma ay information ci aadama ay audio dama leen di conversation bi man duma dagg pour wane leen bokkuma ak bi man duma dagg ay audio man dagg ay audio di teg ñu yaakaar na yàlla jënti oto yi ojo yi wala danga dan laa transféré audio yi aajam wala da ngaa yónnee nit bàyyil duul audio day leer audio ni lañ koy tege Cheikh Ahmed boo dee duggati di duul nii ngay def dangay ngay bind Lamine Ballaago xoolal Lamine Ballaago ngay bind ne nii xoolal Lamine Ballaago nii ngay def léegi nga dugg fii lii mooy ay conférence boo léegi lii ngay wane lii ñu mën a gis numéro bi xam ki ngay waxal nii ngay def lamin a ngi nii lamin a ngi nii Lamine ma bind daf ma woo jotuma mu bind ma. la commencé mu ne ma. jeeg nu mu baax baax jabar jeeg a baax. Ba laa ko de moom laay waxal. ma ne ko man xawma ko. jabar jeeg ku gën a baax. Dieyna mi ku gën a baax man jabar sax dama ko xamul. mais tamit di ma di yàq derum rek nag naan moom moo jeg nangam. lii mooy vocal yi Lamine Ballaago laa doon waxal te man ken mënu maa woo ba ma wax Lamine ma woo ma ñaan mi ngi nii Lamine Ballaago te Wally sekk laa ko jàppe Lamine xam nga lu ma séq moom. ne da doon neexal jay naa sax pour mu noppi bu ko defati parce que mosuma la ko def sama xarit nga Lamine Balago sama xarit nga ma jàpp la ngir Wally Balago Seck su ma la jàppee ngir Wally nag da koy xam man li ma séq ak yow mooy nga soxla teraa nga ma defal la ko amoo foofa naan ma lijjanti ko mais séquma maak yow ay vocal ak joxle danaa bàyyi nag bii mu jàll mais dama bëgg xam ne sénégalais yi xam ne vocal yi yow laa ko doon waxantee rek parce que sama xarit nga yaa ma bind ma tontu na dama bëgg Sénégal xam ko du Cheikh Ahmed du kenn ku yónnee diw déedéet man ak yow a doon waxtaan nga ñaan ma ci Dieyna ma vocal la nga jël vocal yi jox ko naa xam naa mu jox ko Cheikh Ahmed bul defati loolu bu ko defati dama lay conseil rek pour beneen yoon tooñ nga ma tey damay bàyyi mu seet ndax yow doo kaa bi dama dama doon dama bëggoon mu leer ci kanamu Sénégalais rek du dëgg mais damay bàyyi mu sedd waaw kay bu la dalati lii dégg nga beneen bi ci tegu mooy Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed woo nga ba tàyyi lamin Bàllaago mi naan ko dama soxla ay information mu ne la déedéet yoruma dara ci aadama xamaluma ko dara beneen bi ci tegu mooy nee nga penda daf la woo daf la message wax ci Momo jën yàq ci teru Momo jën mais lan moo tax génnewoo ko yaa ngeeg vocal yi kay teg ko yaa ngeeg vocal yi kattal day mu leer bàyyil di wër di duul di yàq der loolu laa la waxoon man Adamo tànk maa ngi dund fii barki Serigne Babacar si artiste boo fi teg yàq deram dinaa fi teg ubbi sa lëfal ndey woo artiste bi setal deram ñun Sénégal la ñu nekk du nangu kenn di yàq deru kenn Cheikh Ahmed Cissé mooy kan ab doomu xaram bu dëkk ci àll ba bu tayee mu taf miyaa gisee ne cagala bu tayee mu teggi ko taf moo jenn di ko baax bu ëllëgee mu teggi ko wax waali sekk ngeen di ko ciy bàyyi di ko bay bayal pour lan na toj cottu ndeyam fële lépp loo waxati ci artiste sénégalais yi naa ko jël ubbi sa lëfal nday dugal leen ci biir man may wax ak yow nga ne bu ma la bàyyiwul du ma am lu ma neex du ma la bàyyi saa yoo waxee ma république toj sa cott nday te du mujj fenn léegi nag penda mi nga sosal dinaa woo penda gars yi déglu leen de kaa bi des na de jay naa wuyu ma Momo Dieng ñi mu bokkal ndey bàyyi baay ñépp dinaa leen dugal ñi Momo bokkal ndey ak baay yépp dugg jay tuuti nga pour yàq moom moo nee naa leen alaaji njuga ja ngay bàyyam jay naa yow caga bu bon nga moom moo daf la takk ngay wër di kattante ji ba ngay dem di fanaan ci hôtel bi di kattante yow doo jigéen ju baax yow lay taf fii jay naa damay tegg Cheikh Ahmed karawam gu matul googu paa bu bejjaaw yow xam nga kañ na Sénégal génn ci yow Cheikh Ahmed ba nga waxee lii lan xam ne wéroo anamu am na loo xam ne ci alxuraan du dëgg de hmm. amut de léeb la léeb yàlla moo ko léeb rek. fii la la nit ñi bàyyee ndax wéroo fii ngay xamee ne yow doo ko wér alxuraan lu ci yàlla wax dëgg la lépp lu yàlla bind ci alxuraan dafa wér yow da nga wér ngay ba nga waxee lii la Sénégal pare ci yow dof bu katt sa ndey léegi nag Sénégal yi damay dugal Penda dugal famille Momo moo bi yépp jay naa caga bu mag la jay naa laa la wax de caga bu ubbi lëfal ndeyam la jay naa mii moom moo jëng takkoon na ma yàlla baax non damaa bàyyi damaa ne woon bàyyi naa sax yàq jigéen ak toroxal jigéen Cheikh Ahmed Wuru sax may tax may wax ci jay naa mais kon jay naa dama di tegal ay preuve nii am lu ma leen di tegal nii ngeen di xool xaaral ma xool ma affiché ko moom ba pare jay naa dama ne woon sax ndeysaan bàyyi naa jigéen billaahi dama waxoon gaa yi ma ne jay naa ngi nii xam nga lu ma waxoon gaa yi dama leen waxoon bàyyi naa toroxal jigéen ak di weer jigéen barke Serigne Babacar si mais benn Cheikh Ahmed du tax ma yàq sa der mais dama ne la yow doo jigéen ju baax Momo Dieng mënoo koo yàq danga yónnee Cheikh Ahmed pour mu yàq Momo déedéet tuuti nga ci léegi nag danuy woo Penda Penda bi mu sosal la ni woo bu nu jógee ci Penda nag maf maa lay ziar maf de maf bu ndox te sama xarit bi maf bu ndaxte loo waaw maf léegi mu dóor ma kado bu ngande moom cey maf bu ndaxteloo loo maf bu ndaxteloo loo sama waa ji maa ngi lay nuyu sama xarit bi léegi nag ah Samba ngi noonu Samba merci beaucoup waaye merci beaucoup Samba maf bu ndaxteloo sama xarit bi merci beaucoup maf salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna Penda maa ngi lay ziar yaa ngi si jàmm. mbaa yaa ngi am jàmm wàññil volume bi foofu bu fekkee da ngay seetaan live. wàññi tuuti parce que day écho Sénégal yi dañoo bëgg a dégg moo tax. non day écho de day écho de écho bu bari lay def. wala nga fay live bi rek en attendant boo paree duggaat. waa léegi maa lay déglu yaa si jàmm. waaw maa ngi euh, yi dama leen a bëgg a xamal ne pendem mi may woo mooy jabaru Mangone moom la kii feneloon euh, moom la Cheikh Ahmed doon fenal léegi léegi ne da doon bind di yàq deru Momo Dieng di ko booleeg moom penda laa leen di bàyyil penda ndax dégg nga yi la waxal ak lan nga ciy sànni. waaw Adama Daba maa ngi lay remercier bu baax vraiment. Mhm. mais bon xam nga. Cheikh Ahmed man dama ko nawoon au début dama foogoon ni li ñuy wax yëpp dëgg la sincèrement mais bi ma ñu ma envoyé parce que man du ma ko seetaan man du ma aw ma TikTok sax déjà. Mhm. taluma yooyu sax mais bi ma ko seetaanee yi ñu ma envoyé tey dama rus ci kilifa bu toll ni moom yow ngay wax àddina di la déglu ñu bëri am ci yow yaakaar nga am ay taalibe ngay sos te dérangé wu la mosuma gis lu mel nii pour te dire vrai dama rus ci kilifa bu toll ni moom bu ma amoon tuuti estime sax mu wax lu dul dëgg man may jigéen yor sama jëkkër di sëy yor samay doom man duma toroxal jigéen Adamo àddinaa ñuy dégg dama la woo téléphone ma ni la Adamo maa ngi gis nga dugal eh, vidéo ci ah. kaawu Momo bi vraiment ñu ngi lay remercier ci wax jeeg ci rafet jeeg appui bi et mais Mouhamed ak Pam Moussa ay seex lañ ñoo bokk benn bis bu ñu judd te seeni ñaari yaay ñooy ànd depuis xale su ma sañoon tontul ci wax rek mais bul ci tudd Moussa Pam Moussa waa léegi moom mu ne man yow laa wax. maa la jox kaa bi ndax dégg na rek nga ni xam nga ma man ak sama jëkkër. dëgg la problème loolu Dieyna moo ne ci ginnaaw mais bon Dieyna du ma ko tontu ndax picc mu lakk ci taat day bëgg moroom man sama jëkkër daf maa takk ma. nee na moom da ko doon vocal di yàq deru eh, Momo Dieng nangam. tere bi ñëwal maa ngi ñëw foofu bisimilah. man yàlla dafa def. may sëyeeg sama jëkkër ci farata yàlla sunnas muhammad jural ko njaboot allah ji njuga jeng aji aw ji aw ndayam mhm. maa jural sama jëkkër ndayam ak mbaayam ndax sëy bu barkeel njaalowuma ko juwaalewu maag sama boroom kër ak kenn xasuma ndeyam saaguma magam tubaar fakal kàllam macha allah te pareegu ma nag damay jur ba mu fees yàlla na yàlla laf cat sama jëkkër gën ma nopp beneen bi kooku duma ko tontu na ko yàlla may na ngelawam nangu duma ko tontu. ñiy laajte kii kan la kii mooy ndey pend mi muy tudd. jabaru ma ngóone mooy wax nii. duma duma duma tontu jéy naa dama koy bàyyi ak yàlla. ndax yaakaar naa ne atta yàlla waral lii yëpp nekk ci biti donc kooku loolu duma ci tontu ma bëggoon nag Cheikh Ahmed Cissé bu fekkente ni lépp lu muy wax dëgg la ci man lillaahi wallaahi wal kitaabi ma ko koy ñaan ci jullit ak moroomu jullitam bu mu mën nëbbal dara na génne ojo yi ma ko envoyé di ko wax ci kaawu moomu ak divorce su jabaram moo génne lépp loo xam ne mës na ko wax ci man ak moom ñu am amuma numéro Cheikh Ahmed Cissé amuma tiktokam awma facebookam xamuma ko duma ko suivre duma ko seetaan parce que man bokkuma ci détail yooyu lépp lu mu am ci man nag dama wax ko na ko génne lillaahi wa yi loolu rek laa am ci lu ma koy wax mag du fen loolu baaxul fen gis nga mooy yàlla sax moo gën fen mooy yàlla moo gën fen te dafa fen te fen baaxul ngay fenal koo xam ni sa moroomu doom la wala sa moroomu jarbaat di jigéen te amoo ci kersa xalaatoon kii amoon na estime ci manam déet li muy wax bu ko déggee xam ni du dëgg mën na ma xeeb man fi ne nii mënatul wax lu ma gën tey bu doon jàngale farata njàpp dama naan du dëgg ah. parce waxal na ma lu dul dëgg. waaw. tey bu génnee ne yàlla nee na julli juróom nangam sangam dama naan yii kaamil bi nañ ko dëpp parce que kii du waxkatu dëgg. ma lay ñaan nag cheikh bi nga génne samay samay samay contact man ak yow sama numéro jéy naa mi lay jox sama say information am na ko na dañ daan déggante du ma dugg ci moom man du ma jigéen moom jéy naa xam man bu ma yàq jigéen moom jéy naa xam na ni jote naa ko man yóbbu nu ma fu ne ci àddina ma yor ay preuve yu ñu daan wax man ak moom te mësuma ko génne man sama yaay dama yar ci sutura mu jubb ci famille bu baax di nit ku baax du ma wax lu bon du ma wax lu ñaaw maa gën a pànk ci àddina nag waaye du ma tooñ penn nga ne na ni ku ma màtt waaw penn nga ne looy màtt la ba nga dagg toog di ko wusal mais na looy ñaan seex bi mu génne li mu yor ci man rek te dëgg nag ulul ak walal kaanal muraan du loolu la ko waxee ci moom laa ko jànge woon de waaye tey ñu ñëw dëpp ñu ah, dëpp mbir yi est ce que noonu di la sax ndax cheikh bi lu mu wut lu dëgg dama koy ñaan rek li mu am ci man te man mu yónnee ko ko te muy dëgg lillahi wa rasulihi dama lay ñaan nga génne ko te yàlla rek tax yàlla rek tax may seedeel sénégalais yi billahi wallahi cheikh bi bu fekkente ne lii rek li mu wax comme ci man du dëkk lépp lu leen mës a wax du dëgg man pen damaa wax lii te du ragal du ma tàppet du ma daw du wax lu ñaaw duma ma saaga nee naa du ma la yàq su ma jugoon pour yàq la une minute doo jar dara ci dëkk bi doo yàq jigéen de bu doon sa ndey bu doon sa maam ak seexam bu doon sa yaay fat ba bu doon sa ndijaay Modou Dia mi nga yàq lu ne su ma avancé. bul avancé bul avancé. jëru ko dama naan patak. jëru ko jëru ko Penda. maa ngi jéggalu nag sénégalais yëpp. jërëjëf bu wax lu ëpp. jërëjëf. maa ngi lay remercier. jërëjëf Penda jërëjëf. Cheikh Ahmed Cissé Penda mi nga duulal ne moo la doon envoyé di yàq moomoo. jabaru mëngoo ne moo lay tontu ni nee na loo yor ci moom nga teg ko si Cheikh bi yaa war a bàyyi duul Cheikh Ahmed duul nga ba bejjaaw te yëgoo ko fen ngaa fenan geew ba ca karawu karawu karawu bopp bi weex tàll te yëgoo ko bàyyil duul ak fenal ni ñeeg yàq der sénégalais yi lay maral sa koy yeeg sa bun yi sa mafia jigéen yooyu bokkuma ci koo fi duulal dinaa ko indi mu toj sa cott nday moomoo sénégal bu tey nga jël mayaa ji gisee traité di caga sànni moomoo ñee caga la sànni waali sekk nangam ak nangam teg dooro gay nangam nangam teg far ba ngom ku la neex nga teg wax ci moom lu bon tojal sa cott nday xadiñee mooy woote nii allo soxna Khady. waaw soxna Khady nag pour ñu pour affaire bi leer damay couper wala appel normal parce que sénégalais yi seetaan. appel normal normal. waaw. xaaral. ki woote nii ay ay ay ay ay rakko Momo Dieng la ay magu Momo Dieng ñoo bokk ndey ak baay Khady Dieng ak Aram Dieng. ñoom laay dugal benn par benn incha allahu rabbi ñoom ñëpp dinañ wax te nee naa leen bu ngeen duggee bu leen bàyyi dara benn détail wax day leer te day clair duma leen laaj benn demande salaamaaleykum maaleykum salaam rek tàkk leen waaw kay nii la ñi mu bokkal ndey ak bàyyi laay dugal cheikh bi mënoo xeex parce que kenn du la wuyu doo woo nit ba nguyu la faale wun la kenn lijjantiwu la koo mën a xeexal yow ay vocal yu ma yónnee Lamine Ballago parce que sama xarit la ma jàpp ko ngir waale mu yónnee ko Dieyna pour dalal xelam Dieyna moom au lieu ci ay jooy muuxu ci jël vocal yónnee la ku nga koy teg naan am nga ndam am na foo jaar laa yónnee naan nit la yónnee vocal mu yegg si man ma di yaa mën a duul Lamine ko yónnee wane ko taj Lamine dégg na li ko wax au téléphone dama koo baal Lamine jéggal ko parce que waale laa koy xoolee barke Serigne Babacar bu dul dara sax mu ngi sonn ne waale moo ma mais baal naa ko wax naa ko mu dégg ko waaw wax naa ko ko moom mu dégg ko waaw baal naa ko jéggal naa ko léegi nag ma ñëw Khady Dieng laay woo yaar xoolal euh, live bi maa ngi ko taal nii 6000 euh, personnes presque ñi ngi seetaan ci ah, waaw dama laa woo téléphone pour dëggal la ko di la wax ne la Cheikh Ahmed Cissé li muy yekk euh, Momo Dieng di ko wax ci jay Dieyna di ko wax Cheikh Ahmed pour mu ko yekk Momo ci lu ñaaw léegi nag nga ñëwul ñu ci détail ba détail ci say beeg yëpp pour bul bàyyi benn point ñëpp ak lay déglu Sénégal gi yëpp du ma la dagg woonga naa ci ci na wa ma ne woonga naa ci guuxam soow Adamo mm-hmm. jëy naa dafa laal laal laate jëy naa dafa laal Mouhamed tàng boobu nga xam ne ne yaayam amu ko ci ay neen kooku yaayam dafa dem ba béy ba mu ñëw dafa bàyyi am jóg sama yaay ju gogo ju kii rakku moom rakku rakku rakku moomoo jee la yéen ñiy laajte rakkam magam rek. magi moomoo jee la ñoo bokk ndey ak baay mais defaral écoute bi xoolal xadi xadi baal ñu nga defal écoute bi écoute bi wala nga kii téléphone bi ñu dégg la bu baax. ayca. a mhm. ci yow. Mohamed moom Awa Diaw Faye di yaayam di ma jëng di baayam sama yaay ju gëge ju goge ju gën jooju ne dafa nàmpal ay doomam nàmpal doomi moromam dof di jéeg gi fi nekkoon di bëgg a dof mu leen faj kon ñun jéeg naa mënu ma lëngal Atello merci beaucoup Maf Maf il faut nga may maire bi cadeau bu mag ci live bi. may leen ko ay kër waay may leen ko ay kër nii la ni kaawee kaa day am preuve kaa day am preuve may leen ko ay kër may leen ko ay kër live bi neex ma dugal ñeneen Khady benn point rek laa laaj nga eggale xam nga Cheikh Ahmed dafa live mu ne. Euh, Penda da daan ñëw ci moom di yàq deru Momo Dieng Penda ne ko boo yoree audio bu ma la koy waxee wala message te ko comme ko moom day wër di duul jay naa ko korom pour ñuy wër ñoom ñetti di feñ Cheikh Ahmed Cissé Penda lay waxal Penda mi nga doon tagg léegi te Penda ku baax la ku bëgg Momo la na nday Penda lay wax ma lay laaj ci loolu. jee ñoo bokk ndey ak baay kii mooy xadi mooy magam. mais jàpp naa ne nag xadi Ah. kii di kii di kii di kii di jay naa wax ju neex ji ngeen di wax ah. euh, ngeen di wax ngeen di wax nday penn te muy moroomu jéega di sëy kër bi ko moom la munta am nag lii ko metti may dégg waaw ñu ngi lay dégg nan bàyyi woote bi li ma bëgg a wax daal Dieyna li mu wax ne ne eh, Cheikh Ahmed toog ko ne maanaam Momo Dieng day toroxal Dieyna da koy da ko da koy da koy teg ay fitna ba mu avorté wu amoon doom wax lu ñaaw lu ne mu wax ko te te kenn xamewu ko Momo Dieng laa bëgg ñëw nga ñëw ci fenu Dieyna yooyu nit ñi di dégg déedéet léegi moom mooy waral ne muy gën naan moom moo dafa lekk samay million bàyyi ma ma dem ay millions yoo xam ne nii yaa ko yëkkati jox ko nit pour mu takk la nu millions yi demee kii moo ko nakk moo ko nakk kii mayam ah ok dafa génn ci xaalisam maanaam ay millions am jox ko moomoo pour mu takk ko kii xaw ma kon daa sonn daa bëgg góor rek góor jaral na ko loolu kon daa sonn ah moo génne ay millions ah moo génne ay millions. kii moo leen di jaayam jëndal ko ko tegal ko ko ci yow daal bu ñu gisee bu leen lay fi ñu waxee bu ne salaamaaleykum bu ñuy wax rek may ah. ku la tax na waaw ba pare ah. moom xam nga lan mooy problème bi. waaw danu koo tooñ ndax Momo jay naa ko mag foofu am ñetti jëkkër mën na koo jur mën na koo jur ba pare nag mama ak Khadija moomu kër ñoom moomoo jee moomoo leen yor seen kër di leen dundal. ñaari doomam yooyu. moom doomam yooyu kay waaw kay moo tax jey naa tekkiwul dara. gis nga bay moo tëdd Adamo. ko seen loxo ne leen bu ngeen demee école lu ngeen bëgg jënd leen. Hmm. Adamo jey naa du jey naa du ñaari doomam yooyu di nga xool ni moo ni di def ci ñoom ak ñi mu leen bëggee te juru leen Dieyna bu doon sëy nag léegi nag dinaa ci doomu Khadija yi ñun ñuy seetaan dinaa taf mama dinaa taf Khadija war leen ne leen seen yaay caga bu ma amul lu ma ciy seet maa ngi maa ngi ñëw ci loolu incha allah ñaari doomam ñu gën a bëgg. moom yàlla ko dimbali bi mu génnee ci moom. Mm-hmm. danoo sant yàlla bu baax a baax a baax. Mm-hmm. léegi nag moom looloo ko métti Ndeye Penda Ndiaye mi ni jël di ko sagoo di ko woyal Ndeye Penda Ndiaye yow la ñuy sagoo looloo métti jaay naa mu ne ma ko du Ndeye Penda Ndiaye moo mën a gàtt ndeyam ñun Ndeye Penda Ndiaye moo nu gënal sunuy bët moo gën si sanu rakk sanu rakk ju baax jooju ma ngoone Ndiaye jaay ci moom jaay sénégalais nag xamul ko tooñ ku fayu la xam ñoom ba moo jee dañ leen a tooñ danoo toog fi nu toog ñu wër leen dem jël ay information jox ko Cheikh Ahmed pour mu ko def lu mu naa lu mu dégg moom moo ko def dama bëgg mu leer ci yéen parce que moom moo yëkkati information yónnee Cheikh Ahmed pour mu yàq moo damaa bëgg mu leer waaw moom mii la moom jay naa waaw kay ba ki dem xam nga lan la wax sañu yaay ju bare jooju man jay naa dama ko bëgg bëgguma kenn ko wax ñaaw barke Seydina Mohamed Adam Dieng di dee man Dieyna dama koo bëgg ay waay bu leen ko wax lu ñaaw bu leen wax Dieyna lu ñaaw kon naa yaa ñàkk jom naa lii nga wax sama yaay jii dañ lay bàyyeeg yàlla yàlla nanu la yàlla fajal barke Seydina Mohamed nga wax ko sanu baay bu gore bii bàyyi nañ la ak yàlla Dieyna naa yàlla àtteeg yow barke Seydina Mohamed Dieyna balaa déwén yàlla nga gis lii nga def nga wax ci ñun nga def ko ci ñun Dieyna ñun ay góor yu sa ci nañu jëy naa ñu léegoog yu set wecc lañ lekk ba naan ma man ñun amuñu nijaay ji ñu may amuñu maam ji ñu may sanu bàyyi boobu lu ñu amoon lu ñu bàyyi bu koy boobu te ba tey ay millions ñu ngi lekk ba tey ñu lekk millions yi alal ju wajan ba tey ñu ngi lekk kon xam nga ne sanu bàyyi boobu moo baax moo gën moo riche nga ne yàlla tabaxal sanu ko gële yow waxal ak seen ku pus gële ngeen dëkk ah. waxal ak seen ku pus gële léegi na xadi xadi waaw baa ngi dem naa la jëlaat ma jël arab incha allah d'accord jërëjëf xadi dafa laaj ñu feree na ko tuuti jël keneen moom xam naa dafa mer day xaabaaba rek kanam yaram bay tàng moom moom moo bokk ndey baay léegi nag damay jël arab nii dama am benn affaire bu ma bëgg mu leer dama ne leen dama bëgg ngeen xam ne jay naa ci boppam moo tooñ jay naa ci boppam moo dem ci Cheikh Ahmed fay ko xaalis pour mu fal ma Momo Dieng yàq ko borom ànd laa buri te muy dëggal ko dijjal ko yeeg yokk data yi léegi loolu lay fayeeku nii te man des na de nee naa leen dinaa leen affiché lal doomam ji maman ak Khadija maa ngi photo yi dinaa leen taf wan na leen seen yaay caga bu ubbil fal ndayam la doom yi di ko gis di jooy moom mu koy gis di du ko di ko met te du ci ma dara kooku mën naa koo def te Cheikh Ahmed tam xanaa ma xool xanaa moom lu ma ci seet ma am lu ma ci seet man mais mën naa leen affiché ñoom ñëpp ndax maa ngi ñoom waaw ban xam ne seen yaay ab cagala waaw kay léegi dañu jël arab jooyoo goo de xam nga da woo Omaro yónnee Bamba Bamba woo Omaro Omaro woo ma ma ne bàyyi naa ngay wër nekk yaa ngi dem ci Cheikh Ahmed ba tey muy toog di duul su ma tafaatee su ma tafee nag sa photo doom yi xam nga kenn mësu koo gis kenn xamul kan mooy Khadija da nga am doomu mitis ñetti jëkkër nga am ku nekk kat la ëmbal la ba sa data bi yàqu nga dugg ci moomoo xale bu ndaw nga moomoo di ans la am 16 ans nga fekk ko fa ne da nga koo nopp yónnee say million teg pour di kattanteeg moomoo jee ndax bëgg siiw loolu lépp maa ngi mi ngi fi tege dama ciy ñëw benn par benn taf sa doom yi wax leen kii mooy doomam kii mooy papaam ban sa doom yi gis nañ seen yaay ñu affiché leen ci YouTube beeg TikTok beeg lépp ci internet bi nga xam ne tooñ baaxul xanaa man ma am lu may seet rut si Sénégalais yi jéggal la. tafee rek nga yàqu mosuñoo gis sa doomu métis yi mosuñoo gis doom yi nga am avant ngay dugg ci moomoo maa ngi ñëw léegi dañuy jël aram man ñoom maa xeexal nee naa la bu ngeen gisee ma naan la maa gën a sadik Cheikh Ahmed Cissé parce que ki ngay fay pour muy wax. day fay di duul te man damaa yore preuve yu ma mën a katt ndeyam fii nit ñi di teg seen bët muy metti lool xam naa wax ji day metti nag moo tax Omaro ñëpp woo ma mi ngi lay tuusi da lay metti métteegu de su ma ñëwee ci Khadija ak mama la lay gën a metti barki Serigne Babacar Si ñëw ci seen yaay li doon def yow ba tey waxaguma ci yow de non damay dugal ay nit ñuy wax kaa bi dafa des de maanaam kaa bi moo des man damay dugal ay nit ñuy wax ñëwaguma ci yow de jay naa man jëlaguma sama wàll de bisimilah ñu continuer ma jël aram beneen maguma moo ñeeme ñu ne la côté seet de xaaral ma jël aram salaamaaleykum salaamaaleykum. allo allo Arame nu mu demee yaa ngi si jàmm. maa ngi jàmm Adama noo def. ça naka dëkk bi. dëkk baa ngi nii ba yaa ngi si jàmm bu baax ñu ngi si jàmm bu baax ñu ngi lay ziar Sénégal gi yëpp ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen fay bu baax a baax. waaw léegi nag li tax ñu woo la sax mooy loolu xam naa yéen sax li ngeen di wax bariwul mais. danoo dafa fekk nit buñ ko waxalee luñ ko koo a waxal rek naa dafa dem ci Cheikh Ahmed fay ko xaalis yàq deru moom moo jéena da koy toroxal da koy def lu ñaaw ñu jiiñ leen ay dëmm ta tam leen wax wax lu ñaaw wax ne dañ leen ko doon jox xaalis ah moom moo jee da ko doon toroxal ak di ko utiliser lekk ay millions ak lu ne ñu waxal leen ko dafa koo dóor ba da koo toroxal ba mu am dépression dem Amérique avorté ak lu nekk léegi nag kàddu gaa ngi ci yow mi bokkal moom moo ndey ak bàyyi ñu ngi lay déglu. Adamo maa ngi nuyu Sénégal yëpp. ñëpp a ngi lay fay di gërëm Sénégal yëpp. Mm-hmm. ndax gis nañ gis nañ niñ taxawoo ci kaawu Momo bi ñun nag amaana bu ñu si tudd woon suñu yaay tudd ñu si suñu baay amaana sax ñun duñ ci wax ndax Momo artiste la te artiste yi fi ne di dégg lu gënuñu ko Sénégal artiste bu ne na fi lu ne waaye dégg na fi lu ne Youssou Ndour dégg na fi lu ne. terewul ba tey ñoom ñu lépp ndax yaram ak tegginam yàlla dogal nag mu am jabar muy jéynaa jéynaa bi mu ñëwee di sëy si ñun macha allah nag mu ñëw wane baax na wane baax wane lépp ñu nit ñu ko ndax suñu rakk ndax moom moo waroon a gën a ëpp chance su képp ku ñëw si kër gi di sëy ndax ñun jëkkëram mooy suñu ay bët ñun dañu Mouhamed Dieng mooy suñu ay bët moo ñu gënal moo ñu moo ñu moo ñu gënal suñu bët yi ñun ndax dafa nekk xale ñu ñu tette mu nekk mu ndaw ñu tette ko ba ni mu toll nii ñu di ko gis naaw sax si ñun ba tey ndax mooy suñu caat ñun ñëpp ñëpp ndax mooy suñu caat jéenaa nag baax wane ne ak gënal ko fu nañ ko lu rek ba sax dañ doon wax naan dañ koy gën a léegi ñu ci fekk déedéet ñun suñuy suñuy suñuy góor yooyu suñu indi dañuy teel ak jikko bu ñu gis yow ñu teel a jéem gis nañ ci moom jikko mais dañ koo téye woon ndax jëkkëram kenn mosu kenn mosu a naan la dañ doon gis si moom la ñu naqari téye ko. amaana mu doon dina rafet tasa jëkkëram rafet. man day aram jéem bu ñu laal woon sama yaay sama papa bu ma dugg di wax ndax mu ngi nekk artiste la artiste bu ne dégg na su ma rek ba mu gis ne. mu def nag lu rafetul ñaaw la def dafay gor ba koy gor yaayam ju baax bi kenn famu ko mu sosal ko ku ne ñu tudd la ñu muy tudd waa